day wax ci bunt bi nag lan mooy àtte naafile yi ak lan mooy àtte sujjóotu alxuraan ak yan béréb ci alxuraan la ñuy digle ku ca sujjóot naafile ci ràkka sopp nañ ko ci wépp waxtu woo xam ne aayowuñu ca naafile weesu woon nañ ci gannaaw waxtu yoo xam ne dañ ca araamal naafila ak yoo xam dañ ko ca sib waxtu yu bokk te yooyu nag saa yoo sawaree rek sopp nañ nga naafila li mu ràkk yoo mën gën gaa néew ñaar mu wax nag yenn yi nga xam ne ñoo gën a ràññiku bokk na ci naafila yi feddli ko ñu sopp leen lool bala ngaa julli tisbaar naafila ñeenti ràkka ñaar sëlmal ñaar sëlmal boo jullee tisbaar ba àggalit naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal am na addis bu ne man xaafada xala arbaxin rakahatin qabla duhri wa arbaxin ba'dahu xaramahullaahu xala naar mu ne ku sàmmoon teg bala ngaa julli tisbaar naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal gannaaw tisbaar it naafila ñeent ñaar sëlmal ñaar sëlmal yàlla araamal sa yaram ci sawara ba tey takkusaan bala nga ko julli sopp nañ naafila ñeent ràkka ñaar sëlmal ñaar sëlmal hadis ba nee na rahimallahu mra'an salla qabla alxasri arbaa képp koo xam ne naafila nga ñeent ràkka njëkk takkusaan yal na la yàlla dolli yërmande te ñaanu warante bi moom lu ñu nangu lay doon waaye buy fàtte ni fu mu ci mën doon rek day fekk waxtu wa yaatu nga xam loolu xaj na ca waaye bu waxtu wa xatee rek naafila daal di araam gannaaw timis sopp nañu naafila gën gaa néew ñaari rakka suñ mag bi daana digle ku sëlmal timis julli ñaar rakk rakk bu jëkk fatiha ak qul yaal kaafiroon rakk bu ñaareel fatiha qul huwallahu ahad ñu wax nag juróom benn rakk moo ci gën a mat ci gannaaw timis hadis bi daa wax ne man salla baadal maghribi sitta rakaxaat lam yatakallam baynahunna bi suu in xaddal na lahu xibaadata snatay xashrata sana wa fi riwaayatin xufirat zunubuhu wa in kaanat misla zabadil baxra ku julli naafila gannaaw timis juróom benn rakka te diggante bu waxu fa benn baat bu aay day mel ne kon jaamu na yàlla fukki at ak ñaar jaamu yàlla gu mat gu rafet dana nett li ne kon ñu jéggal ko ay bakkaaram doonte daa toll ne tuuri ci géej sopp nañu lool naafila bala ngaa julli gee ak gannaaw boo jullee gee ba noppi bala ngaa julli gee moom gën gaa néew ñaar rakk loo ci yokk baax na gannaaw gee nag moom gën gaa néew safaak wetar soo ko mënee def nag fukki rakk ak ñaar wetar ni nga koy defee ci weeru koor wi loolaa ciy gën duxan ak yoor yoor julli yoor yoor naafila gu ñu sopp lool lool sopp gu feddliko feddliko waxtoo mi ngi tàmbalee ci saa yu naafila daganee rek ba tisbaar jot boo xamee waxtoo noddoon salaatu boo seetee ba waxtoo genn wàll topp ci rek xamal ne kon jant bi war naa fenk fi mu nekk bu yëkkatiku lu mat ñetti meetar mbaa mu ëpp ko naafila yoor yoor lu mu néew néew moom mënta manki ñaari rakka boo ko defee ñeent mu baax juróom benn moo gën a digg doomu juróom ñett nag moom mooy yemukaay ba loo sawar sawar bëgguñu nga ëppale ko ko wax nañ ci ay ngëneelam nag ni addis ba nee na rakkaxataani min ad-duha yaadilaani indallahi bi xajjatin wa umratin mutaqabbalatayni ñaar rakk ci jamono yoor yoor dana yem ak aj ak xumra yu ñu nangu fa yàlla borom bi ak man waa waba xala salaati duha lam yaqratfu jinniyun illa taraq ku taqoo julli yoor yoor bu ko jinne jegee daldi lakk taraawiixu ak naafilay ramadaan naafila ñu naafila ci koor gi yu ñu sopp sopp lañu yu feddliko feddliko waaye nag moom liñ ko waxe woon rek ku fekk nga amee ay bor loo nar a naafila rek faye ko bor yi nga amoon boo duggee ci jàkka wala ci jumaa wala ci béréb boo xam ne dañ koo jagleel daal julli te nar a toog bala ngaa toog na nga julli ñaari ràkk nuyoo ko jàkka ja boo dee romb rek jàll moom jëru ko bu ñu nee bala ngaa toog ngay julli ñaari ràkk yi boo toogee ba noppi itam du tee rek ndegam defoo ko ñu bëgg nga jóg def ko waaye nag day fekk itam waxtu wa doon waxtu dagana naafila boo bëggee jàkk ci waxtu woo xam dañ caa sib naafila wala ñu araamal ci naafila kon doo nuyu jàkk ja da ngay jekki-jekki rek toog war ñaar rakkay fajar boo weesoo julli sunna yi moo ci gën a dëgër mooy ñaar rakk yi ngay julli bala ngaa julli suba gannaaw fajar fenkee moom ni mu ko waxee faatixe kese lañ cey jàng teewul nag bari nañu ciy jàng fatiha ak alam nasrah ci ràkk bu jëkk fatiha ak alam tara ci ràkkab ñaareel ndax ngëneel la nga xam ne moom lañ ca wax ñaari ràkkay fajar yooyu dañ caa wuute ba xam ndax raxibatu la wala àgg na ci doon sunna waaye wax ji ñu sukkandikoo mooy raxibatu la gannaaw bu julli sunna yi jàllee moo ci topp gën caa dëgër moom nag dana aajowoo bala nga koo julli mu wóor la ne fajar fenk na boo koy natt booy nattable fajar fenk na am fenkut boo ko defee du doy te it da nga koy yéene li yéene ji ràññiku mooy da nga yéene muy ñaar rakkay fajar waaye su fajar fenkoon nga jékki-jékki tëb rek julli ñaar rakk te jubloo ci mu doon ko ni ki boobu sam xel demu ci sax du doy muuru jant it moom dogu nañ ci ne sunna su dëgër la muuru weer nag ci la ñu woote ndax sunna la wala lu ñu sopp la moom la wax ñu nag ne su weer yi muuroo daal dañ koy defee mooy da nga di julli ay ñaar ñaari rakka loo jàng rek ci ay saar baax na ñaar yoo def sëlmal tegaat ci ñaar benn nga dem ba sonn rek wala weer yi muriku wala boog fajar fenk bu fajar fenkee moom bu fajar fenkee foofe mooy yemukaayu jullik muur gu weer kenn du ko ko weesalee mu ne nag sopp nañu gépp naa fi la koy def ci guddi nga biral ko wax ko ca kaw gépp naa fi la koy def ci bëccëg bi nga wax ko ci suuf dañ ko yëkkati waxuñu boroom xutba maanaam julli gu ñuy julli ci bëccëg bi tam amee xutba mooy julli korite ak tabaski ak julli mbaaw yooyu moom dañu doon doon julli bëccëg deesu leen yalu dañu leen di biral nee nañ daa bëgg a wax ne xeet naafile yooyee ñu fàddali yoo xam ne sopp nañ leen niki ñeent njëkk tisbaar ñeent ci gannaaw tisbaar ñeent njëkk takkusaan ak naafile gannaaw timis mbaa gannaaw gi yooyu yëpp nee na lu mu ci mën doon lañ ci sopp mooy ngay def ñaar rakk sëlmal ñaar rakk sëlmal sib nañ nga tey ko def naa fi la nga ñeenti rakk du ko tee baax sax bu dee ci yoonu Maalik waaye dañ ko sib julli sunna yi nag moom tudd na fee sax wakkul la mas noon ni waaye amul sikki sàkk ne julli sunna yi ki koriteeg tabaskeeg jullit moo jant yépp rek moom ñaar ñaar rek lay doon mooy kenn ku ci ne ñaar rakk rek lay doon du am dara loo ci yokk day bëgg wax nag sujootu jàng alquran mu njëkk wax woote bi ñu wootee ci ab àtteem ndax àgg na ci doon sunna wala naafila la maanaam lu ñu sopp rek la saraay bi daa wane ne sunna la mooy wax ja gën a wóor sujootu alquran amut allahu akbar joo xam na nga koy armale ni ngay armale julli amul it asalaamaaleykum boo sujootee ba siggi booy sëgg daal di sujoot sujoot bi moom da nga wax allahu akbar jooju mënut a ñàkk booy siggi itam nga waxaat allahu akbar moom la ñu gën a taamu boo yemee nag ci allahu akbar ba nga waxan ba ngay sëgg itam mu baax daa bëgg a leeral ne sart yi ñuy sart ci wërug julli dañuy sartaat ci sujootu alquran te mooy faw kay jàng alquran na amee laabug xadas amee laabug xabas sàng awraam jublu xibla sart yi bu dajee ci moom bu àggee ci bërëb bu ñuy diglee sujoot alquran te waxtu wa aayewuñ ca naafila du aayeg araamal du aayeg sib kon na sujoot ci bërëb boobee te bañ koo weesu ndax sib nañ mu weesu ko rekk noonu bañ a sujoot su matalewul nag sart yooyu day tëb laaya ja laaya ja nga xam ne moo amee sujoot ba da koy bañ a jàng su fekkee mu doon wàcc ab kaamil te bëgg kaamil ba bañ a manqué day bàyyi ba toll ci waxtu woo xam ne matale na sart yi te mën nañ caa sujoot mu daldi jàng laaya ja jiitu laaya ja amee sujoot ba bu agsee nag ci laaya ja amee sujoot ba daldi sujoot ba noppi itam nag baamuwaat laaya ja nga xam ne moo ci sës su fekkee nag moom ci boppam jàngul alquran dafa toog di déglu kay jàng kon dañuy teqale ba xam day déglu ngir bëgg tuyaaba su fekkee ne dafa toog rekk di déglu ngir am tuyaaba moom du sujjóot nee nañu kay jàng bu àggee ci barabu sujjóot it moom mi toog déglu waaye tuyaaba rekk tax mu toog déglu du sujjóot bu fekkee ne nag bëgg a jàng maxaarijul xuroof ba mbaa àtte ya mbaa xeeti riwaay yi moo ko tax a toog nag di déglu nañ seet ba xam kay jàng moom matale na sarti ilimaan am matalewu ko bu fekkee ne kay jàng matale na sarti ilimaan nga xam ne góor la di mukallaf amee sarti julli nit ki laab gaag yépp jublu xibla boole ja kon moom mi toogoon di ko déglu te bëgg tuyaa bu taxut dafa déglu ngir jànge ci moom su koy jàng àggee ci bérébu sujjóot rek moom mi déglu na daal di sujjóot bu seet ba xam kay jàng sujjóot na wala sujjóotut day fekk nag kookee di jàng te matale sarti ilimaan mu boole ci di jàng rek ngir yàlla kese kese nga xam ne nekkul di jàng rek ngir wane neexub njàngam mbaa ak mokkalam alquran ak yu demee noonu kay jàng daal bu fekkee ne sart yi daje na ca ka koy déglu itam toog di ko déglu ngir jànge ci moom àttee alquran mbaa maxaarutul xuroof mbaa xeet riwaaye yi kon kay jàng bu àggee ci bërëbu sujjóot rek moom mi déglu na daal di sujjóot ba mu ca seet nag ba xam kay jàng moom sujjóot na wala sujjóotut te fekk nag moom moom mu di déglu mu amee laab gaag sarte nga waxoon yépp ndekat bu amut laab gaag sarte nga waxoon it moom ñépp yam du saña sujjóot sujjóotu alquran day leeral ne sujjóoti alquran bu dee ci yoonu Malik fukki béréb ak benn rek la daa am yoo xam ne yeneen téere yi yeneen ngir yi daañu ko sujjóot te waa Malik duñu ko sujjóot niki li tax mu ne ëwlal xaj yi njëlbeenu saaru xaj yi daa am ci njëlbeen gi fu ñuy sujjóote ak ci mujjug saar wa foo xam ne ñeneen daañu fa sujjóot te waa Malik duñu fa sujjóot moo tax mu ne ëwlal xaj yi da nga di gis itam ci suuratul najmi ak suuratul xalam ak suuratul inshiqaaq yenn téere yi di fa bind ni bëri bu sujjóot la waaye yooyu yëpp moom bu dee ci yoonu Malik duñu ko sujjóot fukki bëri bu benn yi mu tudd rek ci la ñuy sujjóotee tegalewu leen nag ni ñu tegaloo ci kaamil bi ndegam siiw nañu ñu bari xam na leen te it lu bari ci kaamil yi daañu bind ci béréb yooyu ne fii bérébu sujjóot la rek loola la doyloo daal di wax waxin wu gàtt woowu te it tegaliwu ko boole ci bi cëkk mooy saaru laxaraaf fa mu yem laay ba ci mujj bérébu sujjóot la muy wa yusabbixuunahu wa lahu yasjuduun soo demee ba ca suuratu raadi soo ne wa zilaaluhum bil xuduwi wal asal foofu lañuy sujjóotee boo demee ca suuratu naxli da ngay sujjóote ci yaxaafuuna rabbahum min fawqihim wa yafaluuna maa yumaruun boo demee ca suuratu isra da ngay sujjóote ca wa yaxiruuna lil adqaani yabkuuna wa yasiiduhum xushuwaa ci suuratu Maryam da ngay sujjóote ci idaa tutla alayhim ayaatu rahmaani xarru sujjadan wa bukiyaa boo demee ca furqaan da ngay sujjóoti ci anasjudu limaa ta'muruna wa zaadahum nufuura suuratul xaj yi dafa am ñaar ci njëlbeen gi ak fa saar way bëgg a jeexe waaye bu dee ci yoonu Maalik moom bu jëkk bi rek la ñuy sujjóot muy inna allaha yaf'alu maa yashaa ba ca mujj duñ ko sujjóot ñoom boo demee ca suuratu Saad yaa ngay sujjóote ci waxarra raakixan wa anaab boo demee ca suuratu namli sujud baa nga ca allahu laa ilaha illa hu rabbul arshil azim boo demee ca suuratu sajda wa sabbaxoo bi xamdi rabbihim wa hum laa yastakbiruun ci la ñuy sujootee boo demee ca xaamim dafa jublu suuratu tafsil da ngay sujoote ji wasjudoo lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyaahu taabudoon bi xilli nafli da ciy junjune sujootu alquran dañ koy yemaleeg naafila ci kaw waxtu ñu araamal naafila araamal ko ca waxtu ñu sib naafila sib ko ca wees woon nañu waxtu ñu araamale naafila ak ya ñu sibe naafila li ngay dolli foofu nag mooy sujjóotu alxuraan ak julleeg néew ma ñu wees woon ne moom it dañ ko yemaleeg naafila ci waxtu yi araamal yi ak waxtu yi sib yi yaar yooyu muy julleeg néew ak sujjóotu alquran gannaaw boo jëlee suba ba li fekk moxtaaru suba di jeex ku ci nekk daañu la may nga def ko gannaaw julli takkusaan it ku ci nekk ñoom ñaar daañu la may nga def ko ba moxtaarum takkusaan jeex moxtaarum takkusaan jeex nag mooy takkusaan yi suuf jot ba kër yi jàppaloo soo dee xool naaj wi mel ne dafa xaw a xong waaye weexatut na naaj wi weexe woon ci digg bëccëg ba foofu la muxtaarum takkusaan yam julleeg néew daal ak sujjóot alxuraan ku ci nekk gannaaw julli suba lañu sib sib naafila ak gannaaw julli takkusaan lañu sib sib naafila ku ne ci ñoom ñaar daañu la may nga def ko ba muxtaarum suba jeex ak ba muxtaarum takkusaan jeex te naafila kese kese moom duñu ko fa maye dañu wax ne ilimaan di jiite daañu sit mu tay ko ba noppi di julli julli farata di ci jàng laaya ju am sujjóot su dee njàngum biral moom bu tolloo ca laaya sujjóot ja ba sujjóot maamoom ma dana xam ne laaya bee ko tax a sujjóot ndegam fekk na mu amu xàmmee ca loola bu ilimaan de yalu nag ba noppi jàng laaya boo xam daa am sujjóot kon day biral laaya ja ba ko amu xam bu ko déggee daal di xam ne laaya jum jàng day biral bu sujjóot moo ko tax a sujjóot mu daal ko tax waaye nag li ñuy digal digal maa moom mu topp ilimaan ci sujjóotu alxuraan ba teewul rek bu ko ci topputit ñàkkaa topp lu ci wàññi dara moo xam nag booba ilimaan daroon biral moo xam daroon yelu su ko maamum toppul ci sujjóotu alxuraan ba itam daal du ca wàññi dara